mer ba futtu lañ daal di def bokk na ci jafe-jafe yu ñuy jànkoonteel mooy rek seen njaay bi nga xamante ni nii jafe na ci ñoom ñu daal di gis client. ñun dañ sonn guddi sonn nañ bëccëg suñu jën yaa ngi table yi benn jaruti te soo ba léegi ñu ngi nii toog toujours nii nag fi la toog ba timis du ñu gis ku ñu jaay du gis ku jënd. kenn jaayatu amul rantir dañ jaayatu boo bëggee dégg dëgg ñun jaay. client yooyu daal di raar bu baax a baax. li ko waral bokk na ci jaaykat yi nga xamante ni nii dañoo daal di lal seeni taabal ci buntu marché bi li ni mel nag di leen gàllankoor bu baax a baax seen bëgg-bëgg mooy ñu fexe rek ba jëlee leen foofu la ñu nekk. ñii di jaay sibiti ñu ngi dëkk ba Yoof ñee ngi dëkk Pikine ñee ngi dëkk ba Kaolack Kaolack sax am na fi ay yaraax ñëw buñ jaayee mbuur sax am na fi mbuur ñuy jóge ba mbuur ñëw fii di jaay see. mbedd mi ndax tali bi bés bu jot ñu wax leen ko bés bu jot ñu jooy leen ko ñu ne nañ ko saafara bu ñu waxee waxa waxa ñun ba ñu commencé fay juuti ñu delluwaat toogaat. ñuy ñaax maire ville bi di Aziz ngir rek mu daal di jël ay matuwaay ngir li ni mel mu daal di ko fee jëlee benn yoon. Aziz ñoo ko fal ñun ñi ay citoyen lañ waa Mbour faluñu ka waa Yoff faluñu ka waa Dakar ñu ka bu vote jotee ñu ñooy jël suñu carte voter Aziz kon nag bu ñu ñu métti war nañoo mën a mu jàppale ñu ñoom am nañ ay place si biir marché bi nañ ñëw si biir marché bi jaay comme ñun ku nekk jël sa wërsëg parce que ay doomi dëkk bi dañuy génn si biti taal tali bi te bu boobaa day wax si moom xat te bëggul bëggaluñ ko loolu